mbokki jullit yi tedd yi mbokki taalibe yi ginnaaw biñ ñu santee suñ borom subhaanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaalu julli ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa ak ay ñoñom ak ay saxaabaam ak jëwriñam ji nga xamee ne si mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg muy xaadimu rasul ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital si nuyoo bi njabootu xaadimu rasul gi muy suñ jur yi fi teew ak suñ bàjjan yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu xam naa dañuy bañ a lim ndax ku lim doo matal waaye ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu tamit mbokki taalibe yi nekk fii si Côte d'Ivoire di si jiital sëriñ Magumba Thiam ak sëñ dara Sey ak mboolem taalibe yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel ci bis bi di nuyu tamit Cheikh Mouhamadul motoda bu Seex Abdul Ahad moom mi nga xamee ne bis bu bu melee ni ginnaaw yàlla moo ko moo ko melal nii ndax moo amal moo fàttaliku bis bi nga xam ne moom la Sëriñ tubaa jaaroon bis bi nag mu tànnal ko soxna Jaara Buso radiyallahu anha euh, mu tànnal ko ko ñu ko ci fàttaliku di fàttaliku ak dundam ak ay melokaanam yi nga xamee ne si moom la fi nekke woon xam naa danañ si jéem a indi tuuti ay jukko rek pour mbooloo mi fi teew man see jariñu ndax jëmm la joo xamee ne euh, lim indi ci senegal ci ay jukko yu rafet ak liggéey bu rëy buñ ci ko doon fàttaliku fa tabaarakallaahu njariñ kese lay doon waaye di beral nuyoo tamit sëriñ Bachirou Khadim Awa Ba nga xam ne moom sama mag la di sama xarit yàlla dogal na ki ma ko tudde sax mi ngi fi Abidjan ànd ak yooyu juróom bu jigéen mi ngi fi mi ngi fii loolu loolu seede lay doon fa tabaarakallaahu mu ànd ak suñuy rak sëriñ Sidi Mouhamed sëriñ Cheikh Marema sëriñ Cheikh Matilay ak doomam sëriñ Modou Antamar ak fa tabaarakallaahu délégation bu yaatoo yaatoo yaatu ànd ak ñoom ñëw ci bis bi ngir euh, wuy si way juróom bi sëriñ Moutada ak wan ne ko wan na ko ne cër bi nga xamee ne jox na ko cër bu rëy rëy si moom la bu mënoon a indi Sénégal gépp Sénégal lay indi waaye fa tabaarakallaahu indi na délégation bu yaatoo yaatu li may wax bii si guddi rek ñëw na sama kër xam naa boobu ay une heure wala deux heures du jot na yëkkati xaalis bu baree bari jox ko sama soxna ne ko teraanga ji nga xamee ne ñi ma àndal délégation bi damaa bëgg nga nga nga taxawul ma leen di le di taxawul ma leen li ñuy jëfandikoo lépp yow laa bëgg nga toggal leen ko di leen ko jox yëkkati xaalis bu baree bare bu takkoo takk jox ko mën na seede sëñ ma Mariam boobu mi ngi nii toog fekke na ko kon loolu lépp ab cër la ak euh, considération boo xamee ne jox nañu ko maa ngi leen di seedeel ne oto bi ma mujj a jox moom sëñ Bas ay millions la mu yëkkati ko muy oto bu rafet bu yéeme yéeme boo xamee ne kiwi set la ni wa kiw sat ni ma ma def sëñ keroog bi mu koy indi di ma ko jox mi ngi ma fekk sama tool ya ginnaaw pekkees sëriñ Cheikh Mare mii keroog moo doon dawal oto moo ko indi ba si kër gi fekk ma ñuy waaj a julli tisbaar ñu nuyoo waxtaan sëñ Cheikh Marème ne ma ma ne ko xam naa ne ginnaaw ñëw nga damay waaj ànd ak yow dem Touba mu ne ma kaay xool oto bi ma yor ma ñëw ma génn taxaw xool ko mu ne ma oto bi nu ma ne ko macha allah oto bi da rafet na mu ne ma yaa moom ma ne ko mu ne ma waaw mané ko num dé mané ko ne bass mo bas la ko jox xam nga loolu teranga teranga munu ko gëna té te auto bu cher la wi set ni modèle ñi xam kii yooyu euh, moom laa yor di ko dawal mom la mu mujjë jox fa tabarakallah di def def def defin yu rafet ci njabot awa bagi bu yagul rek biñ mujjee dem makka yobona na mo ñu andon ak sama yenen mak yo hamene. da leen jël yóbbu leen màkk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ñu ko doon lim du jeex xam nga bu ñuy lim bu ñuy wax doomu aadama naan ko ndax baax na dañ ne ndax ay mbokkam ñoo ko wax bu fekkoon ne li muy def ci àll bi rek la koy def te yemalewu ko du ko def ci njabootu sëriñ xaadib aw ba gi kon loolu dañ naan xëy na day def faneen waaye li muy def ci ay mbokkam la ko jiite loolu nag ñu ngi ko koy seedeel ñun nag duñ duñu waxal kenn loo xamee ne defu ko ndax fa tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla suñ borom mi ngi ñuy teral bàyyiwuñu euh, te ku def lu baax ñu seddal la ko lii may wax moo ko def te li ma ni ma koy waxee sama rakk yi toog xam nañ ne lii may wax noonu la demee kon loolu ñu ngi leen koy seddal euh, di sàkku ngeen ñaanal ko mu gudd fan ngeen ñaanal ko mu wér ngeen ñaanal ko mu yàgg fi ndax bu fi yàggee kat wax dëgg yàlla liggéey bi sëñ xaarim awa ba sumboon di ko def Euh, dina ko gën a mën a fesal dina ko gën a mën a leeral euh, kon nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool ñu jàll si sayyidatuna Mariama Jaaratulaahi Buso soxna Jaara Buso jigéen la woon joo xamee ne jigéen ñëpp ak góor ñëpp war nañoo roy si ay melokaanam fa tabaarakallaahu ak dundam lu gàtt la waaye dafa fees dell dell dell ak yi ngëneel ak jukko yu rafet te jukko moom la suñ borom subhaanahu wa soxla si doomu aadama doomu aadama ju mën a doon te jukkoom rafetul suñ borom amul si moom soxla ndax bi muy tagg sayda sayduna muhammad sayduna muhammad alayhi salaam si jukko tagg moom suñ borom subhaanahu wa taala wa innaka la ala xuliqin azim jukko ju rafet rek la tagg soxna jaara keroog suñuy nopp bi muy dem si kër Mamour Anta Sali radiyallahu anhu dafa xas xam ngeen luy xas dafa taxaw xas ne fii ma jëm tey jii dinaa fa jur ab yonant bu fekkoon ne suñ borom tëjul bunt yonant ne du wàcce yonant kama fay am ab yonant lay doon waaye nag amina mi amina mi nga xamee ne mooy way juru yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp ma itte gënumaa ragal yàlla ëpp ma pasteef daan na jox leen ma kaamil be ñu jox ko kaamil bi mu daal di ubbi dool li saxaar la ko doon def bi mu ubbee jàkkaaroog aaya boo xamee ne dañ naan ko maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allahi wa xaatama nabiin wa kaana allahu bi kulli cheyin alima mu daal di tëjaat daan na daan na giñ naa si yàlla màggug yàlla ne suñ borom subhanahu wa taala bu bu fekkoon ne tëjul yonante yi alayhimu salaam ne yonent bi mooy Seydina Muhammad moom mujjug yonent fee ma jëm dinaa fa am ab yonent loolu jigéen ñu nekk war naa taxaw xas loolu foo bu ñu la boo jëmee sa kër borom kër nga def fee ma jëm dinaa fa jur lu ñuy soow dinaa fa jur lu ne fàng daan na waaye nag ginnaaw yonent moom suñ borom tëñ na ko dinaa fa am koo xamee ne àddina sépp danañ ko dégg dinaa fa am ab jant kon ñi ngi daaneel suñ kàddu waaye sëriñ Basiiru dafa waxoon ne bala ñoo daaneel suñ kaddu ñu santal ko bàjjanam xaritam bàjjanam soxna bali muntaxa ñu santal ko ko ci taxawaay bi nga xamé ne sék nako ak mom muy xaritam di wëllëreem di am di jammam di leppam di bàjjanam señ bas nee soxna bali señ bassir nee mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal ndax bàjjan mooy baay yaag soxna mam xari ak mbokk yi nga andal yépp nee mi ngi leen di sant bu baax di leen gëreem di sant ñëpp Eh, di am mbégte lool ci bis bii nga xamee ne dañ koo tuddee soxna jaara bu sa radiyallahu anha te soxna jaara bu sa lépp lépp lépp di ngëneel ci moom nga xam ne jukko yi ñu lim si moom benn rek buñ ko jëfandikoo mën nañ si am tax ak àdd ak àllaaxira ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balo ak ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu ak njéggal defal ñu ak texe defal ñu ak mucc defal ñu xewal yu baree bari ba kenn ku nekk la tax a ñëw fii nga am ci lu kawe sa wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh cheikh mohammedul murtada mom cheikh Abdoul di taxawé jotaay bi ci fi nga xamné soré sore Sénégal kon dafa melni buñ fi ñëwé war nañu wax ak bokk yi nga xamné ño fi nekk ndax tukki dafa am solo ndax arab yi dañuy wax ne tasaffar takhannam fa innam taxannam taxallam tukkil ndax nga xame amee ca boo ca amewul dara it di nga ca xame kon ñi nekk fii te sori Sénégal buñ jógee Sénégal ñëw ba fii war nañ leen ay wax dara lu leen fi jariñ bis bi ñu tudde soxna jaara ragal naa ne jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii ak seen doom yi fi juddoo war nañ buñ fi jugee jànge ci man nag ma jël exemple bu gàtt nit ki boo koy royee da ngay gis lum jëf walla nga dégg lum wax comme soxna jaara raw na leen yéen jigéen ñi fi nekk xool leen soxna baalita roy ko ku ko roy di nga jaar ci yoon wa soxna jaara jaaroon ndax yoon wa soxna jaara jaaroon rekk la jaar moom cey soxna baali mun taxaa jàmbar jigéen nag la waykat ba doon wax naan jaan ju góor ak ju jigéen dangar ya ab lugukat xàmmewu leen ca jat ya jula ci matt bo lugul mu ray la ku xeb digen ci diine yeb nga yalla ma ñew ci serigne bashir Mbàkke khadim awba mi nga xamne mo waral sunu tew fi serigne bass man sama xarit la te du man dong waaye li wane ne nit ku am valeur la xamna ay chef d'entreprise yu bari yo xamne dañu dañoo seen activité ñew man ci la bokk ak samay xarit yu ma àndal ku melni mohammed Silla ku melni Cheikh Mbaye Guèye gis na fi ak sëñ Cheikh Naari Dis ak ñeneen ñu mu mënta buñ tejje seen ay activité jugee Dakar ko di war ngir mo lolu war nañu xamne jikko mo koy waral ndax doomu adamay man nga luyé ay chaise man nga luyé bass mais doomu adamay kenn mënu leena luyé xew le digënté réew ak réew képp ko xamné ne wona réew ak réew ñëwël la ci bis war nga xamné ne amna fo ek ci mom wolof da fay wax ne ko wax né xawma nu ma koy def nam la defa tax Serigne basirou nit ñi kenn mënu leen jënd jikko rek nga leen samakalah sama kalaax gu mëna bañ gi ku leen coloniser rek ci jikko nga leen tiyé ndax wax deug yalla deñ nañu reer te am nañu reer kon sa jikko moo ñu fi indi te saa boo parewul ci ñun itam Bas ma lay xamal ne njëkkee woo ko ci ñun ci say bokk nga ko njëkkee léegi am na ko ko wax yëg naa jumaa ji ñuy tabax ca Kébémer million ya nga fa ko ak ba ko joxee matul weer mu mat barki démb man ak yow ñuy wax ci bu jëm ci yow nga ne ma bu ñëwé ci juma ja la jëm tax ay million yu bari la kon lima gëna gën fonk ci yow moy fi nga toll ku fi mas toll deful attention rek dinañ dégg ci yow frasque wala ñu dégg la ci réseaux sociaux yi wala ñu yab yoon wi wala señ bi jaaré ko ci yow yow de kenn du yab yoonu mourid jaaré ko ci yow man damay ab mourid bo xamné señ touba la gëm li ma wér te wóor mooy képp koo xam ne li ngay doxee bu fekkonte ne Serigne Touba dellu si na doo ci àndal dara man naa doon man ngaa doon sama kilifa ndax bi moo fi nekkoon nag ci saaxiir ba jóge fi waaye saaxiir si comme ñun ñi fi des ñoo ko ko war a sàmmal dañoo war a fexe ba kenn du bëtt ñag bi sëñ blad Lahad nag ne na buñ bëttul ñag bi itam nañ fexe ba itam li koy ruur bañ a juddoo ci biir nañ wat xel sunu kilifa yi serigne muntaha ñi ngi koy ñaanal mu yàgg lool te wér damay wax ne koo xam bu la sëñ bi digalee nga def bu la teree nga bàyyi nga am njortu ci ne sëñ bi lii la bëgg te jëfoo ko waxoo dëgg bu la digaloon doo def ndigal waroo bàyyi ba dégg ko ci làmmiñul sëñ bi jëf ko wala nga dégg mu tere la nga bàyyi boo xamee ne bëggut lii da nga ko war a bàyyi boo xamee ne lii la bëgg da nga ko war a def waaye waroo xaar bañ jox la ndigal kon kàddu bokk yi laa yoroon xamuma woon sax fan laay tàmbalee ndax ñaar ñi nga xam ne ñoo séq bis bi muy soxna baal mun Muntaxa ak Serigne Bass ni ñu demee ci man damay bañ bu ma waxee tuuti xaabaabal donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaam ala man tabaanu huda jërëjëf